bokk yeeg xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax baax ci euh, sunu people TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi internet bi nag tey li ñu xëyee mooy internet bi tey nag euh, li mu xëyee mooy ki nga xamante ne moom moo di Soxna Aïda Diallo xam ngeen ne kii di xalif général des Mourides muy mu Mountakha Mbacké daf ko tere li nga xamante ne moom moo di màggal gi mu bëgg a célébrer foofu ca Ngaabu waaye nag tey bi ñu xëyee dañu gis ci sit bi nga xamante ne moo di Seneweb mu ñu xamal ne. l'observateur ñoo xëy di wax ci li nga xamante ne moom moo di euh, soxna Aïda jàlloo nee na ñu gendarmerie euh, dafa fa dem bi mu fa demee nag mu ngi fa nekkoon na doon xool li nga xamante ne moom moo di euh, mesure de sécurité bi ndax xam ngeen ne boobu ba léegi coow li bëri na ci diggante moom ak Serigne Modou Lo Ngabou waaye nag ki nga xamante ne moom moo di soxna Aïda Diallo moom ba léegi waxu ci ndax bi ngeen déggee sax audio boobu nga xamante ne def na ko dafa ne bu kenn wax bu kenn am lenn loo ci expliquer ak yu nu mel. la ñëpp nekk rek def patt bi daal di xëy ci kaamil yi te koy jàng ci ni mu waree waaye nag bi nga xamante ne gendarmerie dem nañu këram ba ñu gisanteeg moom foofu nga xamante ne moom moo di ca ngaabu commandant bi nga xamante ne moom moo di commandant wu brigade bi dafa dem ak ay élément am daal di nag toog fa lu tollook benn waxtu di waxtaan ci li nga xamante ne moom moo di mesure de sécurité yi nga xamante ne war nañu ko jël ci bisu màggal gi ngir benn jafe-jafe ba ñu fa am kon nag loolu mooy wane ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di eh, ñi nekk ci ginnaaw soxna Aïda Diallo ak taalibe yeeg ña koy topp ak ñoom xel mën naan dalandi gum fi mu toll nii ndax nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo wàllum sécurité bi ñoom war nañu fa dellu ngir gën a mën a xool naka la ñuy def ba kii di soxna Aïda jàllo daal di mën a organiser màggalam ci ni mu ko bëggee te benn coow du fa am ndax déggoon nañu ay rumeur yu wax ne am na ñoo xamante ne dañu bëgg yàq li nga xamante ne moom moo di màggalu soxna Aïda Diallo bi waaye l'observateur moom li mu ñu xamal mooy gendarmerie daal dem nañu foofu nga xamante ne moom moo di ca kër soxna Aïda Diallo yi waxtaan ak moom mbokki jërë ngeen jëf woy leen di abonné ci sunu people tv